Euh, ñu tënkal leen rek ca la gën a fees benn par benn kàddu ya nga xam ne rek moom moo daal di tukkee foofale ca dialogue ba nga xam ne rek jamono bi ñu toll nii ma ngay am gannaaw na kàddu yi ki nga xam ne rek moom mooy Cheikh Abdou Bara Dolly moom mi kat daal dinay dellu siwaat gannaaw ba ñu bëree bëri rek daal di jot a xam ne kat mu ngi rangé wu ci gannaaw ki nga xam ne rek moom moo di président de la république muy jot a le ne kat ñi wuy siwul ñooñu ñoom kenn du leen compter kon nag date bi nga xam ne rek kii di président war na koo jàpp na ko jàpp te yoonu kenn du si nekk te kum arrangé wul loolee say yëf la moom mii di Cheikh Abdou Bara Dolly nag mën nañ gannaaw bu mu yëkkatee ay kàddoom nekkat kii di président Sall depuis mu nekk ci bopp réew mi di Sénégal depuis ba tey lañ nemm ko moom mooy ak avancement wala boog comme na mu ko daal dee waxee rek nekkat amul lenn loo xam ne rek lu jàddu yoon la lu ñu gis kenn kat moom mii daal na koy jot a def gannaaw nag ba ñu daal dee gis kenn kat comme moom mi ngi war a dem ci la 12 jaadu na te tamit yàlla na ñii di askanu Sénégal daal di koy delloo njukkal bu baax a baax te delloo njukkal gi mën nañ ne dara jiitu wu lu dul nag di ko déggal maanaam ci ndigal yi nga xam ne rek daf koy faral di yëkkati bokk na si nag ba mu wootee lii di dialogue bi ñëpp waroon nañoo mën a ñëw ñi nga xam ne ñëwuñu nag nañ jàpp ne jamono bi ñu toll ni ñoom amatuñ baat te tamit amatuñ kàddu fii ci biir réew mi ndaxte kat lépp lu ñu jox rek nañu daal di jël gannaaw nag ba ñu gàntalee rek ñëw moom mi nag la mu d'accord bu baax baax mooy que ne kii di président na xool date bu ko neex mu daal di koy jàpp kon nag moom dañu koy daal di compter rek ci ñi nga xam ne ñoom bëgg nañoo daal di dem eh, ci li nga xam ne moom moo di dialogue bi ànd seeg président.